maa ngi tudd Gora Ndiaye technicien ci biir aéroport bi di représenté liggéeykatu aéroport bi yëpp bii di aéroport Blaise Diagne ñu ñëwaat tey di findelaat di waxaat ak sunu président Macky Sall di ko woowaat pour wax ni ko situation bi ci biir aéroport bi dafa gën a empirer di ko waat pour mu ñëw xam li fi xew ak directeur di Roger Salwar tay jii lim ñu wax rek la ñuy génn pour wax ko askan wi lim ñu wax moo di dañ ko laaj kañ fay mu ni amul xaalis bu ñu fayee la ci jidaax nga xamante ni fa la xaalis daan jóge mu ñu mu ñu ciy fay nee na foofu mënatuñ koo jox xaalis pour mu fay ñu. kii mu séqal liggéey bi di client am di AIBD AIBD joxagu ko xaalis pour mu fay te nee na tant que AIBD joxuñu ko xaalis pour mu fay ñu duñu mën a fay. sunu directeur tamit wax nañu loo xamante ni moo di nee na situation bii ñu nekkee nii. su fekkee moom mënul changer AIBD joxuñu ko xaalis amul xaalis bu mu jëlee jida bu wooyee waa jida joxuñu ko moom day arrêté chantier bi ñu dem ci chômage technique bu ñu demee nag ba ni ñu ngi waaj egg ci chômage technique yaakaar naa ni loolu bu ko président déggee war a mën a ñëw fii lijjanti aéroport am bii kër yi liñ ciy jànkoonteel bari na récemment nit ñi biñ ko gis nga leen ñi ñi génn nañ leen ci location dama koy waxaat ñenn ñi seen scolarité doom yi mënuñu ko fay amuñu lu ñu fayee suñu boutiquier yi courant yi amuñu lu ñu dundee kon yaakaar naa ne lii metti li metti na te nag ñu ngi waxaat encore une fois suñu président que ni ñu ngi ci lu metti ñëwal ci lii wow. ñuy passé ci beneen étape bu metti loolu lañ ko wax waaw. aéroport bi mu pare te pareegul suñu président 31 décembre génn na ci message am bi muy wax que ni di mu ngi ñuy waajal defaral benn train express boo xamante AIBD da kii Dakar AIBD la mais béjjën mënut a njëkk a sax bopp balaa ñuy wax ay wax ay train express pour ñëw ci AIBD mais na AIBD pare ba pare autoroute yi ñuy defar jël ay milliards def ko ci te aéroport bi pareegul autoroute boobu bu paree fu mu jëm bu fekke aéroport bi pareegul mais kon président ñun ex président ñun ñoo ngi fii boo xoolee mbooloo mu fi ne ñu nar a dem chômage technique buñ ko buñ ñu dàqee wala ñu arrêté aéroport bi mais fuñ jëm askan wi nekk suñu ginnaaw bari na kon président nag il est temps nga ñëw encore une fois xool sa aéroport bi lijjanti li fi ne président ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. ñëwal président ñëwal. président ñëwal la ñuy waxal ba ku ñu dégg ku ñu gis nga xam li fi xew lenn nag la ñuy waajal bis bu nu fayul mënatuñoo demee nii sunu kër yi grève de la faim la ñuy waajal te bis bu ko defee ñëpp dinañu dégg.